Seydina Muhammad àdduna juróom-ñaar sa am jabar bu ci gën a métti. bu yaboo de bu yaboo. moo de. yaa ngi toog. Tamba naqari taal gaz. Tamba nga defal nànk rek. Alaaji ci loo ne. ca la rek topp jéeg gi rek. <laughs> mena maale heureusement damaa yor ay casque ndax xam naa ne bu ko déggoon defe ni man dama tonton tonton buñ la waat loo woon doo de. Hmm. ah bañ a waat. ah te Serigne Jogay na fi bañ a waat. tonton. Hmm, Jogay yaa ngi fi. tonton buñ la waat loo woon doo de. maay waat waat dara newul yow. bilaay barkeel bi doo waat. maa ragal loolu. buñ la waat loo woon doo de. waaw baax bañ yegg ca. mais mais man li ma jaaxal mooy. Mhm. diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Siteu. Mhm. combat bi taxaw na. Mhm. lan moo ci war Siteu li ñuy xaar ci moom. lan moo ci war Lac de Guiers numéro 2. ci combat bi ndax Lac de Guiers numéro 2 Tonto. adduna bépp ñun kaasal nañ ko fu ne. défendre nañ ko fu ne mais Lac de Guiers bi ñu défendre lan lañu ñu war a wan Siteu mi nga xam ne nii tey ji daa daan Papa Sow war a daje jéeg ñoom Ama Baldé nga nekk ca kaw lan la war a war a diggante mag Lac de Guiers de alaaji Faram combat maa ngi nuyu alaaji Matar Mbay bu baax a baax a abateur yi léeg siyaar ñoom ñëpp di leen bégee mm-hmm. eh, gis nga combat boobu tey bi ma dugalee vidéo bi sax man yenn commentaire yi maa ngi naan gars yi ndar ngeen a juum ci benn côté nag parce que li tax ma jàpp ni gars yi ndar nañ juum mooy combat bi dafa am ñaari détermination yu ci nekk benn bi ci côté Lac de benn bi ci côté Siteu alaaji Fadam Siteu lu ko waay mën a wax ci làmb ji te neewu ko wutil doole nax na ko hmm? barki yoon xiyaam Lac de Guiers technique kese daanu ko xoolal dàqal bëre ci làmb ji doonal jinne amal mystique bi gën a baax ci làmb boo yaakaaree ci mystique doo daan la dageer waaye dina bokk ci lay dimbali parce que mbër bu mystique la aussi ci làmb làmb laay wax nag. boo dàqoon bëri ci làmb ji la dageer bëri nag ak Modou Lo. bëri na ak Tapha Tine. bëri na ak Issa Pouye. ay ndaanaanu bërikat bërik ëmma seen donc bëri kese doyut pour daan ko. Siteu am na ñaan. am na bëre bu sew parce que ndaanaan la mais bëreem dafa làqatu. Mm-hmm. pour mu bëri il faut nga yegg fa fenn fii wala mu yeggale fenn fi bëreem soog a génn. Mm-hmm. donc lan mooy complété Siteu pour mu am ndam ci détermination làmb ji mooy doole. Mm-hmm. doole ju wóor. mais ban doole lay doon. doole ju ànd ak mobile doole ju moom. Siteu bu voyagé dem jëli doole ñëw ba toll ni ko neex te puusul paasul bu ñëwee la dagee dina ko vider dina ko daan. donc il faut mu am doole parce que mën na bëri peut am na il faut mu am doole mais doole daf koy moom nga xam ni combat bi lu mu diire day bokk bu ko la daggeer biijee mu ñëw mais doo andi doole comme doole bi soq andi andi doole duy ba fees ba yow pour nga def action da ngay sóoraale parce que bu la waaji mbasee nga daanu mm-hmm. su jàngee ci booy ñaa xam ni la daggeer doo bëreeg moom doole joo moomut il faut nga moom doole ji mm-hmm. donc mm-hmm. man Siteu loolu laa gëmloo ci kaw bu andee loolu mën na ci génn te xam naa ni abu doful kosu xam na bu baax Siteu li ko war ci combat bi nekkul combat yoo xam dañ naan la entraîneel ba am doole caas non non il faut nga am doole ci biir mais da ngay am doole biti pour mën a contrer lak parce que lak dafa rond waaw boo amul doole ji nag loo ñëw boo fa defee day mujj rek mais après dañ lay lënk ñu di la ba fa muy mujj nag mais lan moo tax lan moo tax nga basé wu ne Siteu nañu won ci làmb loo xam ne nii

Reug Reug ña nga jëm foofu Boy Niang mi ngi foofu. Mm, mm. Bombardier mi ngi foofu Modou mi ngi foofu Ama Baldé mi ngi foofu. Mm, Eumeu Sène mi ngi foofu. Gris Bordeaux mi ngi foofu. dafa nekk ay borom doole lañ mën ngaa rëcc ci kenn sans doole mais boo ñëwee ci ñeneen dañ lay éliminer forcément dañ lay éliminer. donc doole ji fii la koy tàmbalee di ko moom pour bu yeggee foofu mën a complet boppam. mosam ñaari kuddu ma jox Alaaji Matar Mbay nga sax xam ni loolu dana dana ciy baax. Alaaji Matar Mbaye dégg la ma neex deng lu tuldo deng lu tuldo wax. deng lu tuldo wax ci digeunte ki nga xamné ni tay ji mom moy la de guerre numéro 2 ak ki nga xamné ni nii mooy Siteu. waaw boo amoon xalaat boo ciy teg ci kaw table ji lan ngay wax amateur yi lay seetaan. Eh, ma ngi lay nuyu d'abord Fadam tu mm-hmm. Fadam tu mm-hmm. ma ngi lay ziar bu baax a baax. Mm-hmm. di béggee tuldo di bëggé amateur yi nga xamni ñoo ñu suivre yëpp maa leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. Mm-hmm. mais faram man gaay nak des fois man man man man Siteu japp ma ni dafa neew doole. ah japp ni dafa neew doole. pour man Siteu limuy yok ci limu yor ni pour man lim ci yok bari wut pour mëna tolo gaay parce que Siteu amna ben avantage Siteu dafa njool bu leen fatali Siteu dafa njool. da am wet. Siteu dafa njool te dafa am wet. Siteu ni gars yi mën a gaawee feesee moom ga mënul gaawee feesee noonu bu fekkee naturellement lay entraîné. Mm-hmm. Mm-hmm. mais man du ma jàpp ni dafa ñaax doole Siteu man dama jàpp ni dafa am doole bu amee lu muy yokk si doole tuuti lay yokk. Mm-hmm. comprendre leneen li muy liggéey ci diggante man la dëgër su ma doon maay moom Siteu rapidité ak xeex lay liggéey su ma doon maay moom Siteu rapidité bu wóor lay indi la dëgër ak xeex bu doy waar. mais pour man Siteu problème problème am du doole pour man Siteu ay argument la war a gën a focaliser wu maanaam xeex bu jaar yoon xeex bu saf-saf la war a indil la de Guiers ak rapidité lépp lu muy def Lac de Guiers koo gis. Hmm? ba pare tamit Lac doo ñëw ci combat bi nga jël lépp bëgg ko bëre de da ngay jël li nga moom jox moom li moom <laughs> mais loolu lu leer naa la wax doo fi jëw jël combat bi bu ko bu ko bëree yow kaset la da ngeen kenn bëreewu feeg moom noonu. kon kon kon kon da ngay da ngay da ngay jël bëre ba bàyyi ko xeex ba wala ngay jël xeex ba bàyyi ko bëre bi. da ngay jël bëre ba da ngay jël xeex ba xeex ko bàyyi ko bi bu laajee buukonte nga taxaw ak buukonte ak moom après taxawaat loolu ngay de loo fi def leneen ba mu daan la koy yëg ah lu leer naa lay wax. la da ngeen daa am lu moom de. <laughs> Alaaji Bakary Sakho bu xel a koy def bu bu mu fi déglu gaa yi. voilà. ñu ngi leen bu baax a baax a baax bu Matar Mbaye la. jërëjëf ñu ngi leen di jaar bu baax Alaaji Bakary Sakho mais Bakary Bakary diggante Siteu ak Lac de taxaw na. waaw loolu neex combat bu neex la yaakaar naa ne euh, Lac de Guiers numéro 2 nekk la grand champion. bring ndaanaan ni mën ci lamb ci te yaakaar na nek nek ben phénomène bu nek ci walu lamb wàllu làmb yàgg hmm waye mhm. waaye gi ci te jël la de guerre numéro 2 ci te jël la de guerre numéro 2 lan mo war ci te ci te kay combat bi bu a def ak wa réew mi yooyu fi mu toll am na combat wax deug yàlla dol ni moom lu ko nit wax lu dul demal entraîné ji jël masse bi war te masse bi war bi mooy masse mhm. équilibré ànd ko xeex mais loolu rek ko war ci combat bi amul leneen lu amul leneen loo xam ne Siteu war na koo mën a yokk hmm? kooku moom dama la koy wax waaw amul leneen loo xam ne war na koo mën a yokk boo bëggee dégg dëgg à daal mu dem jël poids te poids bi muy jël na doon poids boo xam ne day méngoog bëreem teg ci mu équilibré mais tey jii. donc loolu moom. bay moom bay moom boole ko tey jii te nekk benn phénomène ci wàllu làmb barki démb mu ñëw daan Papa saw Papa saw na de guerre numéro 2 daan ko moom mu ñëw daan Papa saw ñoom ñaar ñëpp ñu daan Papa saw te yaakaar naa loolu la leen boole ci làmb mais fii Siteu te tey jii ci ban niveau entraînement la war a préparer digganteem ak la de guerre numéro 2. bu gaa yi juum. newul na li Siteu daan Lac de Guiers moo ko booleeg. Lac de Guiers de lim daan Papa Sow moo ko booleeg Lac de Guiers de. Lac de Guiers daa toog lu yàgg amul koom kenn ku ñu. non Siteu lamba lamba ah, leen boole ah. waaw waaw mais. loolu xalaat may xalaatee day di fois. donc euh, je comprends ngeen di xalaatee man li may xalaatee loolu boolewu ko Lac de lu yàgg amul combat moo ko booleeg Siteu. loo lay wax. kii xool xool mu naan ni may yi xalaatee yow si xalaat sa waay. kii xam nga kii dëgg la bu mën a nappaate quoi. mais xam nga lan mooy kii eh, eh. moo leen boole pour man làmb boolewu leen. saa waay daa toog mais mais mais Bakary Sakho Bakary Sakho ah. yaakaar naa ah. képp kuy amateur làmb wala ngay wax ci làmb kaasal nga Lac de Guiers numéro 2 pour moom combat. pour Lac de Guiers numéro 2 dindi tuuma lan la war a indi ci diggante ba Siteu. mais amul choix Lac de Guiers ci boppam moo war a ñëw di mbappat man wax naa ko moom moo war a ñëw mbappat fii amul lenn soxlawuñu Lac de Guiers bu ñëw di xeex sax na ñëw mbappat wane na moom daf moom daa mën a bëre wane na moom am na bëre ñëw mbappat loolu kese la Lac de Guiers na ñëw mbappat ak hmm? combat boobu soxlawuñ ci combat wu Gala nekk fii di xeex xeex bu jë bu amul àpp soxlawuñ loolu. combat wu bëri la mais mais la dëgg rek ko bëri loo mbaa la dëgg surtout du ko juumloo. ah, ah mais di lag moo ne daa mën a bëri te ku bëree juum ku bëree ku ku wuree ku ne juum. mais Toldo. mënul ñàkk. Lac de Guiers numéro yaakaar naa ne képp ku nekk ci làmb bëggoon nga Lac de Guiers numéro 2 bëri hmm. mais bi bi nga déggee ñu ne Lac de Guiers 2 Siteu taxaw na te Lac de Guiers numéro 2 bëgg a bëriwaat ak Modou a bëriwaat nga xam ne ñoo nekk ci kaw te yor xaalisu làmb ji. 100 pour cent mooy ñoom roi des arènes nag ñu def ci roi des arènes léegi de Guiers numéro 2 lan moo ko war diggante ba Siteu. waaw maa ngi nuyuwaat Kosu euh, Bakary mi mi ñu fi fekk si nii. Euh, sànq Matar fi ma doon fi ma doon waxee mooy damay fi ma doon waxee naan Siteu il faut mu doole

dañ naan c'est l'occasion quoi maanaam tey loo xam ni bëggoon nga ko def amuloo foo ko defee woon nga ni tey dal naa ci. ça fait l'occasion waaw ça fait l'occasion voilà ça fait l'occasion tey loolu la am ci Siteu mooy ça locasion l'occasion mënuma bëri du ma song damay tàddeel làmb damay machine pour man looloo tax la dëggeer jël Siteu parce que jàpp na ni li mu bëgg a wane ci bëre sekk ji Siteu maanaam dox ci kaw sitta gën a yomb dox ci kaw ñoom Eumeu Sène ak ñoom Modou Lo ak yeneen gars yi

Lac de Guiers warul sax léwatoo ak Siteu benn deux minutes di léwatoo ak moom non Lac de Guiers dafa war a wàcc gàddam léwatoo ak Siteu arbitre bi sifflé trente secondes mu dox ci kaw Siteu dox ci kaw Siteu Lac de Guiers bu daal di Siteu te daanu ko avec manière défaite la Lac de Guiers mais mais tol tol toldo toldo loolu go allo allo toldo jéggi la jóge woo euh, Matar Mbaye dégg nga li Toldo wax fekk Toldo di ñëwaat. waaw. man li sans problème man li problème mooy Lac de Guiers numéro 2 sénégalais yi wax nañ ko loo xam ne nii ci làmb. Mm. ndax bu ñëwee force si bëri si ak ci te si ko juumloo. waaw moom laa lay expliquer. Lac de Guiers même bu fekkee daa ëpp doole si te. làmb dafa ñëw mu ëpp dama lay supposons. Lac de Guiers du ëpp doole Siteu ëpp doole bu mu koy mën a jaayee doole ñëw fekk ko fa écrasé loolu mënul nekk. Hmm. parce que bu fekkee Siteu da ngay par rapport ak li mu indil Papa Sow rek Papa rek li mu li ko Siteu indil ci dernier combat bi Siteu mujjee bëri li mu indil Papa Sow rek bu indilee Lac de Guiers Lac de Guiers mënu ko mënu ko malmené mënu ko malmené. Hmm, hmm. yaa ngi may dégg. ma léegi nag Siteu mooy yokk tuuti mooy yokk tuuti doole. Mm-hmm. comprendre nga xam ne dina mën a jàmmaarloo ak Lac de Guiers numéro 2. mais Lac de Guiers numéro 2 li ko wax dootoo bëre ndax tey jii da ngay téye sa bopp waratoo bëre ndax nangam nangam nangam bu ñëwee ne tey jii day imposer biir bëre te Siteu ñëpp xam nañ ne mënee na tuuti ci lutte avec sol. waaw ndax boobaa dugg ci avantage Siteu. xam nga la dëgg fi ne nii avantage am ci làmb ñëpp xam nañ ko mooy taxaw di léewtoo ba sa <laughs> ba sa adversaire ba sa adversaire juum nga daan non non attends ak loolu lay bëri hmm? dina jàppanteeg yow jaay la doole wàññi la ci jàppante bi ba nga wàññeeku lu muy def mu def mais gars yi la dëgg bu ñu bëri combat bu métti na non ka ma expliqué la benn affaire man Siteu tey bu ma wax indi lu ma koy wax waaw indi sa argument arbitre bu sifflé linga li nga indi nga li nga entraîner nga wane li nga entraîner ben 2 minutes bo gisul lo xam jaar fi ñepp jaar taxaw ma tax man de tax la jaar gaa yi fi ñu gaa yi xamoo fi ñu gaa yi ñoom ñëpp fi ñu jaar ci taxaw Leewtoo lañ ñoom ñëpp. xam lu gën a garaaw li gën a garaaw. waaw damaa def émission eh. Eumeu Sène. waaw ñu àggee ci ñu àggee ci la bi ngeen de dafa ne non moom non doo bëri eh. moom doo bëri moom doo <laughs> bërki démb stade maa ko dëkk micro ni ko giri sa diggante la dëgër de mu ne waa Fass nee nañ giri waxu ko tey de te problème mooy giri waxu ko tey giri bi mu ko waxee yàgg na de nit ñee doon sonal rek mais giri bi mu ko waxee yàgg na boo ñaane newoon na la dëgër moom ci bunt bi la taxaw ku ñëw da koy jox sa ticket rek romb mu jox la suus suus suus bi la lay jox suus bi daggal netti kay mu jox la suus borom leer la ya man de barki deb xam naa ne day surtout li muy sàggan bala dëgër ndegeen koog ndelam boobu ma gis. bob bi bob bi bala dëgër man de sama ndel bi six fois six fois six ndel mais bakari Sakho mais bakari bakari bakari hmm. bakari la de Guiers numéro 2. mu ngi bëre combat bu métti. ndax combat bu métti mooy gars yi ndax la de Guiers numéro 2 dina ñëwaat ci làmb bëre comme ak méthode bi mu doon bëreel ndax yow mi tey jii dégg naa yow Bakary Sakho nga ne Lac de Guiers numéro 2 dafa war a daa war a wane bëri ndax loolu la Sénégal yi di xaar ci moom. est que est que xam nga man fii gars yi di xalaatee du ma ko xalaatee moo tax damay waxatil nag maa lay déglu. xam nga xam nga dara mooy problème bi. tey ñu bëri rek de Guiers yëpp Dakar ak Lac de Guiers ñu gisee loo xam ne nii newul ci ñoom. Mm-hmm. da leen a tëlee bëre. da leen a teree xeex tere leen bëre mu wane ne ñoom. Mm-hmm. am na côté boo xam ne aaye wuñ fa. le fait que côté boobu aaye wuñ fa nag ñoom ñaar ñëpp ñoo samp niil parce que tey dangay gis nag ni gars yi di waxee boo xoolee ba xool dañuy jël lépp teg ko ci kaw Lac de Guiers mais nee naa la gis nga mbër bu la mënee dëgg da duma nga bañ a bëre da ngay bëre par la force nga bañ a xeex da ngay xeex par la force da lay duma da daan mbër bu la mënee dëgg budé dee def maîtriser na wala nit yag na top sport de combat ñeu samp ni ni ni ni c'est rare nga koy gis té bo doon gis ni li sax ci partage de point la rek mais bo mënee bëri deug nga ne mbeureun mbërëntaan mën nga bëri tek ñu bëri door ngay def ñu la mën nga xex normalement bu fekkee ne préparer nga sa adversaire pendant six mois war nga mën a jàng défaut Lac de Guiers war nga mën a jàng défaut Eumeu Sène dañu waxante dëgg rek te yàlla tax sport de day métti nag bu Sénégal yi jëlee lépp. lépp moo ak moo moo moo tax ma ne ñëw nag Lac de mu ngi bëgg. mais Bakary mu tax ma ñëw. mais Bakary xam nga ni Lac benn défaut la am ci laam. benn défaut la am ci laam xam nga mooy mën def. beri doole. waaw léegi nag léegi nag léegi nag moom laa lay wax dama lay bëgg a expliquer olympique bii boo bu fekkee ne koy suivre wala. wala mos ngaa dem seetaan ni bëre olympique nga taxaw nga gis mbër yu bëri doole yo xam dañ leen da xol dañ leen nax ci sen doole dañ leen daan ci sen doole dama ne la mbër yi jàkkaarloo rek la dëgg sen bëre dafa am fu yam motax munuñu ko ci daan. moom bëreem am na fu mu yem ba mënul jël yenn initiative yi loolu xam nañ ko à la base mais nag li ko gars yi langal ni teg ko pourtant nag boo xoolee boo xool ñim dajal nii yëpp. moment boobu mais Bakary mais Bakary lan lan bëri na ak ñun ñàkk. bay wax la li ngay wax nii. dundalul la waaw waaw attends mais Bakary la guerre na ak ñi xam ne ñoo ñoom lañ ne ñoo dàq bëri ci làmb bi. parce que boo bëree ëmmal seen bëreeg Modou Lo bëri Papa Sow rek ñett ñooñu rek maanaam ay mbër yoo xam ne la tactiquement dañoo différent ba pare dañoo mën a bëri. man de man de benn kàddu laa ciy wax benn ah, kàddu laa ciy wax. ñëw léegi xaaral ma ñëw. ñi ñi la Lac de Guiers numéro 2 ci biir géewu làmb xaw mën nga xeex xaw mën ngaa bëri waaye boo dajeeg moom ba pare Lac de Guiers moom day benn mbër boo xam ne nii benn secret la am ci làmb dàqala xeex senegal dàqal dàqala bëri dina jàng sa mën a xeex jàng sa mën a bëri jàng yow li nga mën lan moo koy contracté bu ñëw ci loolu lay taxaw. mooy mbër loolu contre technique dafa am moom la leen di wax. moo tax ma lay ne la bu dee yaa jàng sa adversaire da ngay xam Lac de Guiers ñëpp xam nañ ne am na doole am na taxawaay. day mhm. xeex ragalul xeex. boo ko jéemee wëre ci bëre li nga ko bëgg li bëgg mu juum ci du ci juum ndax lan ndax topp na la gis na la léegi nag problème bi. du léegi nag moo tax man leen Siteu mi ñu daan gis ci làmb mu bëgg a progresser bëri jég roi des wala mu bëgg a progresser daan. waaw la war a dox ci kaw Siteu. dama koy waxaat saa mi ngi koy wax bis bu Lac de juumee ba dox ci kaw Siteu bu keroog googee da ngeen gis Lac de Guiers buñ dóor aree mu toog daan Bakary sénégalais yi ñoy wax pour changer Lac de Guiers dama lay wax rek sénégalais yi ñoy wax pour changer Lac de guerre deug la mhm. day metti trop ci côté bi nga bis bu wàccee andam te puusut adversaire am juum dootu ko defete ci lamb mais Toldo Toldo Lac de Guiers de war naa warna break naa bëri si te di xar ci te dirigé ko xama sank gis na ben commentaire ben way mu ne yaa mën yaa ëpp doole ci combat bi laa ko gis gis nga sport dafa am bis yoo xamante si nii bu dee sa bis la ba ñi lay seetaan gëm ni bis bi sa bis la hmm. boo gëmul ni sa bis bi sa bis la xamal ni sport boobu doo ci sori hmm. loo mën a dégg ci làmb ji Lac de daan na Siteu du doon surprise hmm. mais Siteu daan na Lac de Guiers mooy doon surprise ndax ñëpp bi ñu waxee combat bi dañ ñu ah Siteu lu muy wuti ji ci Lac ndax da ko ëpp doole ñenn ñu loolu lañ jàpp ñenn ñu ne ax ah lak dafa naqaree daan hmm. donc Siteu daan la daguère mooy doon exploit xaw ma lañ koy xee ci France mooy doon lu rëy te mën na ko nag c'est possible man gëm naa ni mën na ko parce que man man man Siteu mosuma ko xeeb ci làmb parce que xam naa ne ndaanaan la hmm. mais lan da guère daan Siteu du benn kenn du bett kenn waaye nag mooy la ma la xoon lan da guère bu fekkee mooy daan naka lay daanee ci ban hmm. façon lay daanee arbitre ne prif sifflé Siteu dox ci kaw Lac de Guiers 2 def yëfu de Guiers 2 daan ko dañ naan Siteu waaye yëf yoo yëfu xale nga def waaye ah yëpp xamal ne laga la mën. da ngaa waroon tey ba la mais xam nga ne la bu lii rek Lac de Guiers 2 la. moom laa lay wax ni Siteu bu bëree ci combat bi ñëw bëri ko bëri ak lecture bëri set. même bu daanee day am woyu jàmbaar nga. c'est-à-dire Siteu hmm. mën na ñàkk ci Lac de ba pare amaat gëpp est-ce que xam nga ni Siteu mën na daanu ci Lac de Guiers avec manière. ba pare ëpp gën ko gën gënaat ko combat ci kanam xam nga loolu. billaahi Lac de mën na daan Siteu ci combat bi mu gën koo delloo ginnaaw amateur yi gën koo jéppi. Lac de Guiers mën na gagné Siteu ci avertissement amateur yi jéppi ko Lac de Guiers mën na gagné Siteu ay détails amateur yi jéppi ko Lac de mën na bëri benn façon boo xam day daam ba pare nit ñi ne ak cam parce que liñ doon xaar gis ko Lac de Guiers dafa am benn charge bu amateur yi teg ci kawam mooy VIP kenn bëggul bëreeg moom te ñi ñi ñu ci bëri bëgguñu bëri moom jot nañoo bëri moom ba pare amateur yi kenn mm. bëggul combat am ñi ko doon kaasal ñu néew lañu. Mm. Siteu au contraire moo jël Lac de Guiers sax dafa sauvé Lac de Guiers mais Siteu bu amoon beneen adversaire Lac de Guiers day day woyee di waat. Mm. donc Lac de Guiers dafa am benn pression bu nekk mooy lan dafa war a ñëw ci combat bi arbitre bi sifflé mu dox ci kaw Siteu avec manière du question dafay jaayu mais dafa am nu ñuy doxee maanaam dox fu laak fayda cadre Siteu fekk ko fi mu taxaw. dóor ko Siteu ñëw mu jàppanteeg moom malmené ko humilier ko daan ko jug dem yoonam ak fulla fayda nag. waaye bu demee. bu demee fekk fa doole. ju Siteu moom. combat bi foofu la coow lu nekk nag. mais mais Toldo toldoo ba balaa Matar Mbaye dugg. Lac de numéro 2. Lac de Guiers numéro 2 hmm. bu ko Siteu dirigé ci combat bi def benn contre attaque mu xaw a dëgër mu taw téye boppam. ndax la de ni ma deux boba lamb du ko ba ma andi won sita duma ko wax bu andi won sita man laax man sama gëm-gëm man bu andi won sita parce que du fekk la de amul ben pression sita amul pression ci lamb ji la de bayiko bàyyi bu ma andi won sita dina andi doole ju mom mom fadam andi xex bu woor fo jugge di ñew nak Matar gis nga fo jugge di ñew bu la doore sama gos bu bon bi di nga faree na taxaw ma léewatu waat ak Alaaji Matar mbay ma faliku ma dama taxwil deggal dégg sa wax. leg li ma wax sang li ma doon wax sànq day sànq tool rek ma si fekk mooy maanaam si te si te amul lu ñuy perte maanaam si te combat bi amul lu mu siy rek la ci am comprendre nga dama ni la si te wuy ñëw day indi xeex bu wóor indi rapidité bu wóor comprendre nga. doole ba mën a dékku la degeer bu su la degeer jógee jëm si moom mu mën koo yaa ngi léegi nag boo ñëwee premier man sax d'accord naa premier premier premier premier premier premier round parce que combat bi du doon du benn round parce que moom xam nañ ni lu mu bon bon dinañ bëri dinañ bëri dinañ bëri dinañ bëri doole nag lan da koy def voyage de bu la ñëwee benn voyage la koy def de. yaa ngi may dégg mm-hmm. non Siteu mënul bañ a indi doole déglu Siteu day indi doole Siteu parce que li tax mu jël la de guerre moom xam naa ne war am na lu mu bëgg a wane ba tax mu jël la de parce que loolu rek question la lan moo tax si ta jël rek de guerre point d' interrogation boobu noonu si ta mu répondre te bi mu te bu ñëwee premier acte bi li koy répondre mooy premier acte bi si ta mo war a def réponse boobu noonu si ta si la war répondre ba pare dogo indi leneen ci làmb bi comprendre nga mhm. léegi nag si ta man d'accord naa bu ñëwee li mu mu ñëw premier acte mu ñëw wane li mu def li mu war a def mais bu defee li mu a def ba pare na bàyyi la dëgg def li mu a def tamit. Hmm, en tout cas amu ci pression de moom moo fay Siteu de ma jox la information boobu Siteu moo fay Lac de Guiers de ci xeex combat bi waaw ah, waaw du ma la kase de waaye Siteu fay Lac de comp na de. yow Fadam loolu li ma li ma bëgg a wax rek li ma bëgg a wax li tul do wax sax am na solo trop. ndax yaakaar naa ne. Lac de Guiers numéro 2 fii làmb toll. Boy Niang. li nga koy li nga koy fay ci Modou mii boo ko doublé woon ñaar ne ko kaay bëri Lac de du bëri moom. Modou Lo li nga koy fay ci Lac boo ko doublé woon ñaar du bëri ak Lac de Guiers numéro am na seen Gris Bordeaux moom bëri ak Modou Lac de ak ko ko rey lay male. léegi moom nee na bëriwul. waaw la de Guiers pour loolu dëñ pour loolu dëñ la alaaji Papa Dieng waxoon na ko bëri jéem a daan waaye la de Guiers na wane waat avec manière ci diggante ak Siteu waaye man lii sans problème Bakary Sakho mooy Lac de bis bu imposé Siteu wala mu ñëw bëgg a wane boppam cent ci làmb ba bëgg a wane lu mu mënutoon ah xale bi dafa am wet te ab tëliwut ci làmb. Fadam est-ce que xam nga benn affaire làmb baaxoowut ñuy wax sport buñ ko tegee ci plan de carrière teg ko ci sport. am na kenn ku gën a xam la de Guiers sport. dans le dans le domaine de lutte grecque romaine lutte simple. Mm-hmm. as yëpp Lac de Guiers da ko maîtriser. looloo waral ay combat am gën a jafe. looloo waral ngay gis ay match nul parce que saa bu ngeen jàppante mi ngi jéem a xool yow nooy juumee pour mu daan la boo juumut du tante donc xeetu bëre bi muy bëre mm-hmm. bokk ak gars yi xeetu bëre bi ñuy bëre gars yi dañuy bëre ne yàllaa ma may tey yàllaa ma xañ suba foofu lañ koy wékk mom da koy takki tactique ak technique. loolu différence kon loolu sport la ñuy wax. damay comprendre nak ay gëmul defit quoi. parce que tay dama lay waxat nee non non gis nga bo bëggee dégg-dëgg. Yékini ñaata mbër la fi bëri bëri na. Yékini ak Tapha Gueye nu mu fa demee woon. nañ dellu ci waat suñu xéx rek suñu toll ni mën nañu jël lepp teg ko Lac dëgg la. dañ fàttali ne am na mais man Bakary Sakho soo gisee te soo gisee amateuru làmb yu bari jël lu bari teg ko ci kaw Lac de dama bëgg ñu xam ne Lac de Guiers numéro 2 fii Modou Lô nekk tey jii fii Boy Niang nekk tey jii la de Guiers dafa waroon foofu. loolu tamit point la boo xam ne ñun war nga mais mais mais mais mais Fadam Lac de foofu. man barki yéen kii bi ma yaakaar. su ma sonoon mhm. Lac de numéro 2 benn bokk na ci mbër yi ëpp victoire ci làmb gën a mhm. néew defet ci làmb muy mbër gën a baax palmarès gën a baax palmarès ci làmb ji dañ ko wax rek ndax man li sama mhm. problème mooy Siteu bi mu jëlee Lac de Guiers 2 dama ne nag mu ngi doog a sas boppam mais bi ma bi si gis ngeen dinaa leen souligner waatal dinaa leen souligner la waatal te danaa ñëwaat souligner leen maanaam Lac de Guiers ci boppam tay liko xagn lu beure ci lamb la de Guiers dafa ñëw di yeewoo gox boo xam ne goxu géejawaay la géejawaay ñëw am seen fiisu bu tudd la Gaye soo xoolee problème bi la de Guiers am sax Sa du ko dund ci biir géejawaay boo xoolee yenn mbëru géejawaay loolu la ñuy dund Lac de daan ñëw ci biir lamb daan ànd ak ay ñoom maamaat ñoo comme moment boobu mooy moment du prouvé ñoo gis nga poids lourd yëpp yam am na niveau bu ñuy toll dañuy tënni dañuy am retenu retenu dañ koy am mais Lac y a des plus compliqués que ça xam nga tey amateur lamb yi kenn ku ne mën nga wax kenn ku ne mën ngaa takk tëkkal fen la mais gis nga bu musul xeex wala musul bëri des fois day compliqué surtout nag si tu es principal maanaam yow nga ñam ngemb dugg ci combat jël ay combat di daan di daan di daan nga dem ba tollu benn niveau affaire yi compliqué et non seulement fi Lac de Guiers waroon a gën a am encourage maanaam fi ko gars yi waroon a gën a encouragé gars dañ koy poussé mu dégoûté lu tax parce que tey axlu làmb bi nga xam ne ñoo ŋànk làmb war a mën a dundal sport war a am lu ñu war a mën a communiquer ñooy entraîné di lever ay mbër ba pare di rey benn mbër mbër yëpp nag lu ñu sakkanee ni ñu bëree ñëpp benn mbër lañ ciy rey muy lakk dañ dañ dañ ñu doon xel yi <laughs> dañ wax sport ngir yàlla boo ko xoolaat ok dama lay wax dama lay wax benn affaire maanaam maanaam làmb ak ak ak ak ak ak ni mu bindoo bi làmb sosoo ba léegi ñi ëpp tour mhm. ci lamb moy ñi nga xamni bu addu bu addu sibé dañuy tok seen nen fekk fa seen adversaire def ko ni ñi def dem seen yoon yaa ngi may dégg ñooñu am même temps dañuy am ah, kasetu yow tamit nga songu leen ñom ñu def li ñuy def mais Lac de Guiers da ngay nangu tamit benn affaire ni ni ko làmb yëpp ni amateurs yi li ñu koy meree chaque jour mooy Lac de du jël ay initiative si làmb. ñaata nul la Lac de Guiers. Lac de ñaata nul la am Lac de nul na ak Eumeu Sène nul na ak Lac de Guiers ni astafurlah nul na ak Modou Lo moog Boy ci biir combat bi nul la après lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko def verdict moog Eumeu. non non non non non non non gis nga moom laa leen di wax daf leen dànk rek. Non, wax ñaata nit la am amul après lañ ko non non dañ lay wax non, non, non, non, non mais victoire yi victoire yooyu ni ko amee mais attends victoire yooyu ni ko amee ni ko la de guerre amee xam nga on est pas on est pas ici ñuy xas da de guerre wara xam nga lu expliquer mais dañuy waxtaan ci lab waaw dama lay waaw dama lay mais victoire yooyu ni ko amee victoire yooyu ni ko amee moo neexul mais Matar. waaw Matar da ma victoire yooyu noonu victoire yooyu. gis nga àqu dem ba instant dañuy ñaan yàlla mbër. dañuy ñaan yàlla ci làmb. yaa ngi comprendre. mbër mi daan day am. suñ toll nii gars yi de Guiers la gars yi di gis par la force loolu lañ bëgg Lac de Guiers bu bu ndërmeelu. daaw ba Bakary loolu loolu damay loolu dama yaakaar dama yaakaar sa xalaat la rek nag dama yaakaar loolu sa xalaat la rek. waaw. tey ku nekk sa xalaat tax ngay wax man sànq dama lay li man boobu léegi maa la koy wax nga nag léegi fekk si ngam nga ma ndax dama wax sànq ne la man xalaw xalaatuma ni nit ñi xalaatee déewu départ wax naa la sama xalaat mooy tey boo xoolee nul Lac de Guiers yi nul la am deux nul deux ñaari nul la Lac de Guiers après gars yi bëgg ko baddil noo xam ne nii ma nañu waxante dëgg rek nag Agresseur doomu jàmbur la benn ngi noonu. Bakary fii doomu jàmbur la ñëpp ay doomu jàmbur. ma ñëw gis nga Matar Mbaye il faut pas prendre rek damay man danga sama xalaat laay wax il faut pas prendre ça personnel. la la de Guiers doomu jàmbur la benn ngi noonu ñaareel bi axu làmb dañoo ŋànk sëf ko loo xam ne ni tey dafa mel ne quatre-vingt-dix mille nul la am te amul quatre vingt ñaari nul la mu am ñan la bëreel ñan la ko amel ah. tey Modou Lo Gris eh, Gris Bordeaux lan moo tax xewoon nan la amee victoire kon xanaa boobu baaxul xanaa kon loolu nul la. mais man dañu waxante dëgg rek. mais man Pape Alioune Sakho. Bakary pour Lac de Guiers dindi loolu ci kanamu sénégalais yi. lu baax li ma lay laaj pour Lac de Guiers loolu nga koy kaakal noonu ci karamu sénégalais yi. nan lay réagir rek ci diggante ba Siteu. kaasaluma Lac de Guiers. bëreet nga def ma ne la Lac de bu fekkee ne man bu dee man du ma changé dara ci li may bëri. bu dee bëri man personnellement bu dee Bakary. li jënd tuuma li nit mhm. mooy benn bi. ñaareel bi xam nga moom mooy lan biñ commencé dama ne ginnaaw gars yi loolu lañ koy wax dama ne ko bu mu xeex na ñëw mbappat loolu laa wax mais dama bu dee man maay Bakary Lac de Guiers bu fekkee ne mi ngi may déglu amul virgule bu lii ni gis nga nit ñi ñoom liñ bëgg a kaas ak liñ bëgg a kii takku ñu ngeen bi bi la ñuy toog di wax. loolu loolu tout simplement. toog na fi ay at tëggaluñ ko combat te rewut tàllul loxom fenn taxawalul fenn mi ngi def ay affaire am dañu waxoon dëgg ñaari nul la fi am moo bi gën a baax palmarès bu dee ci wàllum sport mbër yëpp moo leen gën a doon sportif bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax bu dee sérieux moo leen gën a sérieux moo leen gën a constant donc li ñuy wër ci sportif mi ngi ci Lac de Guiers nul nag daa fay daa bokk ci carrière victoire bokk ci carrière défaite bokk ci carrière mais nag mënoo leen bannir yenn yi ba pare bëgg faa teg leneen. léegi léegi euh, Toldo waaw. loolu loolu la bëgg teg. waaw li ci bëgg a teg mooy euh, sànq gis naa benn euh, euh, benn amateur bu bind doon laaj par palmarèsu ñaari mbër yi. Mhm. waaw Fadam nag bu ñu juumee parce que ñun dañuy xool ci internet rek parce que des fois ñu mën nañ juumaa ah, nga bàyyi xel li ñuy wax. Mhm. bu dee bu dee Siteu ñu ngi ñu defal dix huit combats def treize victoire musul match am quatre défaites ak ben sans verdict mom lañ wax ci Siteu ah donc mo nek nekk euh mo dan mbay 21 dan bébé Eumeu Sène Mame Balla ko mu dan jos 3 daan naxa naxa dan Frazier dan Rouge Bordeaux daan mhm. Naaru Sokaas daan Malaw Seras daan Lemposé daan euh, Boy Sey daan ko mu dan Pam Morlo dan Zarko Sa mhm. Thiès dan ko mu daan Zos guy gi daan ko euh, moo Papa Sow sans verdict lañ wax euh, mu ñëw daanaat Papa saw donc loolu lañ wax. ci sa loolu sans verdict waaw waaw lool lool lool lool loolu lañ gis fii nii quoi. Euh, bu dee bu dee Lac de numéro 2. wala ji Lac de Guiers waaw bi. <laughs> non alaaji moom suñu yëf la benn mbër moomu ko. kon ñu alaaji ñun ko moom. waaw benn mbër moomu kon kon sama booy Lac de Guiers kay léegi bu dee Lac de Guiers numéro 2 wër naa ko mais li ma am fii. mi ngi yem ci combat am ak Yékini après Yékini yaa koy yeggali après bi mu bëreeg mm. donc fii ñi ngi def ñi ngi def euh, seize combats après Yékini ah après Yékini boolewu ma ko ci donc seize combats lañ def douze victoires benn sans verdict ak deux nul ak benn defet euh, mm. donc euh, ma ma Mansour Diop la bëreel Xaadim Xaadim Diallo. Batika. Babacar Diallo. bu toj oo. Oh. nees. oo oh. eh, da daan waaw daan Yékini Junior. daan Tafatine. Mm-hmm. daan Issa Pouye. Mm-hmm. Eh, daan Zos. Mm-hmm. daan Tafa Gueye. daan Papa daan ki nga xam ne mooy Yékini. ñooñu mm. eh, ñun ñëpp daan kenn rek moo daan muy kii di Eumeu a ko daan. Eumeu a ko daan. daan waaw waaw waaw léegi après Yékini nag léegi après Yékini nga ciy boole léegi kon day nekk boo andee après Yékini kan la bëreel avant Boy Niang mu keneen ku mu bëreel. avant Boy Niang. kii après Yékini am na ku bëree Yékini ba pare. ci bi mu bëree Yékini ba pare. bi mu bëree Yékini ba pare ci la daan Papa. ah bon. non ci la daan Papa Sow la bëree Yékini après Papa Sow la daan bi daanee Yékini ba pare Papa Sow la jël non non. non non Papa ça au jiitu daa mel ni de. Papa non bim bi kañ la gars ah Lo ah Modou Lo la bëreel bëreel. waaw voilà kon kon douze donc da nga ciy la défaite bi kon da deux défaites la donc. deux défaites la am. deux défaites la parce que deux défaites la deux défaites am donc fay léegi victoire yi benn victoire ñaari victoire mo ci yok muy Eumeu sen ak goña donc day nek 14 victoires deux défaites deux nuls ak ben sans verdict ah, lolou mooy palmarès sur la déggee ni ma waxu ñuko nak ci luñu japp dañ ko wax ci luñu bind ah buñ juumee amateur yi ah, non riche na riche na riche na riche ah sans verdict ba wel sans verdict verdict dañ ko kase sans verdict bi mooy bi muy teg loxo bi nii. waaw waaw bi muy teg loxo bi arbitre defe ni kii daan na quoi. mais Fadam loolu daal moom ah. man xam naa ñëw tàggatoo mais man daal li ma lay daal lenn la mooy combat bi moom. la da guerre numéro deux. Euh, daf ci am pression bu bari parce que ko mbëri kenn bëgg koo jël mais am na nu muy daane euh, mm. day continuer xam nga Bakary mi ngi wax sàng naan euh, la da guerre benn defet laam am tey mën nañ ñaar defet rek la am ci làmb waaye bukki dañ ni ko luy dëgg. lu mun lu ñëpp waxee dëgg. Mm. c'est-à-dire mooy lan mooy ax lu làmb yëpp ba sa gox bi nga dëkk tey am na loo xam ne joué na sa carrière ba mbëri ñu bëreeg yow ba tey amateur yi naan bëgguñ sa combat léeg-léeg gis gars yi naan tey la daguère per pay-per-view ci maanaam moom en personne champion la mais peut-être façon de faire am moo satisfaire nit ñi nit ñi nag comme ni ko waxee ku nekk ak sa gis-gis ak sa xalaat mais comme amateur yëpp tey la daguère pour mu toog combat lu jafe la moo tax Contre Siteu dafa am lu mu war a dafa am lu war a ñëw daan maanaam maa mën maa doole ba pare ñëw confirmer daan Siteu avec la manière Mhm. loolu nag bu koy def aussi tamit na ko def ak xelam. na ko def mhm. ak xelam mais man de je préfère Lac de Guiers fekk Siteu song ko daan ko que Siteu fekk Lac de jàpp ko daan ko imagine toi Lac de Guiers tey bu doon daanu ban daanu moo gën ci moom. mu def mhm. li ñu bëgg daanu. ak mu def lañ ko xamee woon daanu fan fan fan la coow yi dëppee. xam nga Lac de Guiers de Lac de Guiers de mu ñëw xeex ak Siteu jëli ji ko ci bëre bëre moom ba Siteu daan ko. Hmm. dégg nga ma nag. merci foofu doon. dégg nga xam la doon métti xam nga kañ la doon métti ah. kañ la doon mooy mooy amateurs xam ne li ñuy wax la de guerre munu ko mais yi xam nañ ne li ñuy wax la de guerre mi ngi ci la de guerre. Eh, la de guerre la de guerre kenn dàq koo bëri ci làmb. waaw ah, waaw moom laa lay expliquer parce que ñoom li ñuy li ñuy li ñuy ci la de la de guerre na ko mais Fadam. maanaam nekk da ngay xool lu nekk maanaam li nga manqué da nga koy danga koy jàng danga koy jàng ku nekk li nga manqué da nga koy jàng. mbëri bi ñuy ñëw ci làmb. Mhm. Modou Lo ni mu mel ci xeex léegi melul woon noonu ci xeex. Mhm. Mhm. ñuy doog a bëri. ay góor rek mi ngi noonu. mais léegi nag affaire boobu danga koy jàngi loo xam ne da nga koy jàngi ñëw indi ko imposer ko parce que la guerre bu fekkoon mbër buy song la la guerre ah, yow mën nga défendre ba pare kay yow kay li li la dese mooy maanaam song di di di di di di terminer ay combat loolu da koy jàng. nga ñëw wane ko ci làmb ji. beneen bi topp mooy fi may tëjee mooy Siteu. Mm-hmm. en tout cas moom amul pression ci combat bi. amul pression ci combat bi. mais na xam ni aussi tamit combat bi euh, dafa am nu mu ko war bëree moom ci boppam. parce que làmb ja tey ña fay ñëw ñëpp dalee leen Siteu leen fay yóbbu. Mm-hmm. bu dee ci ambiance Siteu leen fay yóbbu. stade bi la fay nekk bu ñu dee cent quatre vingt dix Siteu moo leen fay yóbbu. Mm-hmm. donc loolu nag bu fekkee dafa nekk sa ginnaaw nga jël ku mel ñu Lac de Guiers gars yi di tooñ naan ku ñëw da ngay tagg di ko dem maanaam del def lu wóor boo déggee mbëri naan la wala ngay da ngay dagg ticket mooy del def lu wóor boo def lu la wóor da ngay jaar yaraax saaraan yi ngay def da ngay tallaxu ngay def mel booy ñaar ko wax rek mooy sa xarit bu ci njob waaw da ngay tallaxu da ngay tallaxu boo taxit surtout na wuti doole ju wóor ju mu moomal boppam ba pare na nàmp na nàmp loxo yi mu wow koŋ ndax fu la dëgg man de gëm naa ni la dëgg day dox donc surtout fu la dëgg doxee ñëw daa war a warul ñam bonbon mais daa war a ñam koŋ-koŋ dellu mais la dëgër bu joxee ci kaw Siteu mu neex Siteu am na problème. <laughs> am leen jàmm. jërëjëf jërëjëf alaaji tol do bu baax bi jërëjëf ba rey nga rey barki yéen tamit rey nga boo dee mais Matar Mbaye Matar Mbaye Siteu nee naa ko su bi nag la sa làmmiñ bi di leere combat bii la làmmiñ Siteu bi di leere naññ naññ naññ naññ mam nga Eh, coowam loolu ah saa yooyu yëpp fii lay leere ndax la dëgër la jël nee naa ko looy sàgg ba la dëgër ndengeñ la. <laughs> maaleykum salaam salaamaaleykum. bu baax sëñ Mbor sëñ Mbor ñu ngi siyaar. <laughs> oui siyaar coach Bakary may siyaar doom yaay may siyaar gaay ba. na ngay tey waa baay kontaanee Abdoulaye bu baax waaye dama si tombé nii liggéey bu baax ñu nekk ci panel bi ñëpp oui dama bëggoon participer rek rapidement quoi waaw xam nga xam nga fu mu nekk nii ñi wax ñëpp am raison tey boo xoolee li Bakary di wax moom sportivement lay wax instant yi ñeneen ñi ñu ngi wax en tant que amateur waaw donc ñoom dañuy nekk ừ. ku nekk dafa nekk ci rôle am instant yi c'est-à-dire amateurs hmm. yi ñoom spectacle hmm. mo leen andi ci lamb boy xol lamb après tout spectacle lañuy bëgg ñëw gis comme xam nga peut-être des fois li Balla di andi sax daanu par moment xam nga jël ay risque yo xam peut-être des fois war na ko mëna hmm. baña jël mu jël ko daanu continuer am ay supporter Lac nga Guiers tamit quoi qu'on puisse dire li ko andi ci niveau bi dede du yaafu dede dafa dafa prouver dafa prouver def ay ay résultats. ba ba yegg fu mu yegg. Siteu tamit prouver def ay résultats wane sañ-sañ. Mm-hmm. xam nga ba ñëw ci niveau gars yi c'est-à-dire. Mm-hmm. foog gars yi bañ di fàtte loolu. <laughs> mooy ne que tey booy xool profil sànq li li kii di wax di li li li toldoo di wax. loolu dafa mm-hmm. dafa déterminant quoi. mooy ne ne que booy xool euh, si niveau euh, palmarès tey booy xool palmarès yi boo ñu ko waxee rek. Lac de Guiers dafay dafay seetal boppam parce que après tout sport la ñuy wax sport bu ñu demee ba pare après dañuy évaluer ñëpp ñaata victoire nga am ñaata défaite nga am bu dee si ñun ci football dañ naan ñaata club nga def xam nga ñaata bi nga dugal ñaata kii nga def mais tey Lac de Guiers bu arrêté woon fii doo tudd dëgg la ñaari doog ci boole de mais mais mais mais mais ndax Mbir Diagne les grands champions yi ci réew mi ndax Lac de a arrangé na leen ndax ñoom la dëgër da leen jàng ba jàng lu ñu mën a yëpp bu dajee ak ñoom loolu da leen koy tegal loolu tax mbëri ma yëpp ne ñoom la dëgër arrange ci leen dootuñu bëri ak moom mais justement loolu mooy loolu mooy tey rejoindre li li Bakary di wax mooy ni nekk la dëgër tey ñi jaar ci moom c'est-à-dire ñi jaar ci moom daan ko mm-hmm. ñooñu lamb daf leen nangul par force daf leen di nangul parce que boo xoolee tey Modou combat yi mu def ak Lac de mais combat yooyu boo boo xoolee moom moo ko propulsé sax mu yegg ci tey niveau hmm. ñoom ñoom ñoom ñoom Yékini ñoom ñoom ñoom ñoom Balla Gaye xam lu ma la wax parce que dañ def deux combats ñoom ñaar mu loo munu ko jàpp daan ko Lac de Guiers taxaw fi mu taxaw ak profilam parce que profilam la <laughs> loolu moom moom day taxaw carrément signature ne leen ne que hmm. sama combat du ma ko sorko sorko damay ñëw xool ba mu leer ma dem su gisul damay taxaw moom. moom waxalul kenn mais man dama gis la dëgër benn yaram boo xam ne nii. gis nga gars yi ngeen bàyyi xel. dafa am loo xam ne nii daa nekkoon ci Yaxya Jóob Yékini te dafa nekk ci Lac de xam ngeen ne Lac de Guiers ko gën large ci làmb bu bariwul. te yaramam amul miskil boo xam ne mën nga cee croiser sa loxo. yaram bi ni yaramu Yékini meloon boo xoolee yaram bi da nga naan kii amul doole. te bu ngeen ko doole. loolu la waral Yékini daan rey les grands champions ndax Yékini ni yaramam bindoo woon daan ñëw bu simmee ci làmb da nga naan kii entraîné wul te boobu fekk na dund na niveau boo xam ne nii yow dajoo cinquante pour cent bi. la mm. day naxe. Mm. léegi nag Siteu mi war a dajeeg Lac de moom lan la war a teg ci kaw table ji sama waa ji. loolu damay bàyyi damay bàyyi Bakary non non Bakary. Bakary loolu Bakary. loolu loolu du ma nangu Bakary. moo ñu ko gën a xam instant li combat bi di gën a dem. ñuy doog a dugg ci étape par étape. ndax instant yi nii dañuy yee combat bi. wax ci niveau entraînement yi. surtout yow mii tey xam naa ne. xaw ma la xamoo ma. waaye mën nga ma xam mais xam naa ne dund nga niveau professionnel. surtout tey jii. lan moo ko war ci mhm. tey jii ci niveau professionnel ci wàllu entrainement ci ban miskil la war indi ak nan la war a préparer la de non sànq gars yi ñu ngi koy wax spécialiste yi ñoom ñoom Bakary yi ñu ngi koy wax Toldo ñu ngi koy wax xam nañ ne nekk Siteu moom xaw ma lu mu dul andi ci combat mm-hmm. boobu mais dina andi doole. waaw Lac de moom pour nga bërek moom xam naa ni moom foog nga am doole bu wóor boo xam ne di ko mën a dékku suñu nga mën a nga mën a manoeuvrer waaw mais leneen li leneen li sànq sànq kii mu ngi koy wax yi mu ngi koy wax tamit sànq ma ay suivre bu baax nee na nekk Lac de Guiers tey bu ba def loo xam ne nii du mëninam <laughs> ah Siteu mun na ko dóor bu daan waa ah. loolu kay xoola loolu moom ah man man laa cee teg xaalis bu bari way mun na ko dóor bu daan mais seulement dama bu dama yaakaarul en aucun moment Lac de Guiers di juum parce que ñun tàmmaluñu loolu quoi moom <laughs> <laughs> mais mais mais man Lac de Guiers combat mu Siteu bii. Euh, Lac de communication bi mu doon ki làmb ndax lu mu gëm la wala lu mu gëmut la tey nag laa koy doog a nangul. ndax Lac de xanaa du bàyyi di bëri ci Siteu di ko diriger xanaa. non combat bu neex la. xam tax Fadam parce que xam nga Siteu Siteu dafa garaaw ci communication mos tuuti balaa laaj bee maa maa ngi lay maa ngi lay maa ngi di di bëggee sama. waaw man man sax. non non yaay toog man dama war a dem xaarale man dama war dem xaarale mais mais wuy ma maa ngi lay maa ngi lay bëggee di bëggee di bëggee di wax ni dañuy wax rek en tant que ay amateurs yu bëgg làmb neex kese. Hmm. Mhm. waxuñu parce que dañoo contre Lac de Guiers waxuñu parce que xam nga. Ah. dañuy wax rek dañuy wax suñu xalaat wax li nga xam ne moom la amateur yi di wax ñu koy dégg loolu la ñuy wax. Mhm. waa kay léegi nag. Lac de Guiers na ñëw wane leneen. Mhm. na ñëw wane leneen na ñëw wane leneen lu nekk ci moom leneen la ñëw wane ni man am na leneen lu nekk ci man lu dul nit ñi di wax. si tamit bu ñëwee na def li mu war a def bu ko gisul na taxaw xaar ba ba beneen bi soobee yàlla. combat bi combat bi yàlla ci jàmm quoi. mais man mais man mais man Bakary Sakho Bakary Sakho ci wàllu mhm. Siteu côté Siteu lan la Siteu di indi loo xam ni tey jii. du la bett quoi ci combat bi lan nga xam tey jii bu ko ah. Eh, ah. Eh, eh, maa ngi nuyu ko waale Ado Gueye di ko ziar. contre Siteu bi maa ngi koy nuyu. ab gis nga Siteu. combat contre Lac de mun warul sax indi muscle bu dagg. xoolal bu hmm? décidé. ah waaw. pourcentage de gras bi foo mu yéeg ndànk.

ñu jox la combat jox la Lac de Guiers mooy tey yow tey guerre ma tey maanaam jàppal na Siteu ci làmbam ba mu daj bi mooy premier combat Siteu am combat ci làmb contre Sa Thiès ba sax du woon combat premier combat bi nga xam ne ni tey Lac de Guiers da koy jox Siteu Siteu war a ñëw confirmer ne moom mooy Siteu moom mooy yalmin biñ koy woowee mm-hmm. combat bii la te nag li koy may Siteu mooy

Euh, même bu fekkee ne combat bi di ko war a voyager wala voyager wu ko sax bu fekkee ne lekk war a lekk ma nga fële la lekkee voyager fekk si ko Sénégal fekkee lekk yaa ngi fële te yor na billet hmm? mais na ci liggéey cardio bu wér bu wóor parce que lag nag naa lox benn affaire de. lu ngeen ko changer lu bëri. mën naa bëri bu gisul du dem bu gisul du bëri. non dama lay wax. la dëgër de la dëgër de dafa mel ni at la la judd billaay mën naa bëri ñetti fan. damay dégg damay dégg des fois ñu ne. eh li di contre Papa Sow. ba pare ñu bëgg imaginer teg fa Lac de Guiers yaa ngi juum si te indiwul lu bëri contre Papa Sow li fa indi boo tegoon ñaabu ndaw ci kanamam ñaabu ndaw da koy yëy ci ci bind. ñu waxoon dëgg rek te yàlla tax. fekk gis nga des fois gars yi la ñuy demee. si te li indi foofu soo xoolee ñaabu ndaw nga teg ñaabu ndaw nga teg ñeneen booy nga xool booy yi da ngay gis ne booy li liggéey moo gën fuuf li si liggéey ñu wax dëgg rek dañ ko accepté kon bii mu amak ak Lac de Guiers ndax xam na ne lu liggéey da ndaw na lu mu ci mën liggéey lu mu gën a am dafa ndaw foog ngay xam loolu ci sport lañ koy teg foog ñu wax ko carrément pour nga daan Lac foog nga yor doole joo xam ne nii maîtriser nga ko waxuñu nga ñëw indi maas nii rek danaan waa gars naan wii noo tolloo nañ déedéet loolu dafa rey mbër yu bëri am na champion yu fi newoon doon fay roi des erreurs dopage moo leen xañ seen seen seen futur avenir. Mm-hmm. Mm-hmm. te gis nañ si te barki démb bi muy wax bay jooy gis nañ ni mu toll gis nañ ko. léegi ndax te combat bi dana ko permettre te jël poids boo xam ne nii poids wu naturel lay doon bu normal buñ teg ci xaati mu lekk diététique ak entraînement boo xam ne nii dafay am ay temps de repos yoo xam ne day dugg ci biir ci biir cellule am loolooy première des choses deuxième phase bi mooy te dem jël leneen mhm. loo xam na ni bokkut ci yaramam ça peut être bénéfique pour lui dans ce combat là mais dans le mhm. futur ndax waru koo mën a xeñ parce que nag mbër yu bëri xañ nañ seen bopp ndax lan jël nañ combat te ñuy bëreel am na doole nangam nangam mu jaral leen ñu def leneen loo xam ne nii tey plus mhm. tard moo leen moo leen sonal ci seen avenir alaaji Cheikh Massi ñu ngi lay nuyu baax di la ñaanal jàmm waaw maa ngi lay nuyu di nuyu l'international Leyti Ndiaye ak coach Bakary comme que nee na léegi ko woowee Bakary coach coach dama lay wax lenn nag di nga Lac de Lac de bu taxawee foo baatare ma coupé foo defee live ma dugg loo wax ma tegg ko ñun Siteu la ñu xam nga way boobu ñu naan ñun Siteu la ñu bëgg Siteu moo dee suñu léegi nag man su may wax li olof jaay naan ragala féete day day day xañ wërsëg te teel ngaa defar bëgg mais du tax ñu wax ko dëgg du tax li ñuy analyse ñu teg ko ci yoon Mhm. ñaa bu daw boobu ngay wax bu taxawal ak Siteu Siteu lem ko doo ñëw taxaw fii gis Siteu amay coach am amay encadrement ñu xool Papa Sow liggéeyal ko loo xam ne tey lii la ñuy daanee Siteu combat bu nekk ak nooy liggéey coach bu nekk waaye yow man li li ma wax dégg la yow li nga wax ni ma koy déggee ak sax yoon nekkul yow ni koy déggee loolu amu ci ay comprendre yoon xamu leen fu may suñu yoon nekku ci da ngaa wax dañ lay tontu Siteu li mu liggéey ci combat bii dem ci île bi sacrifier boppam xam na lu tax mu ngi bërek nag euh, Lac 2 booy koo xam ne tey mm. moom mooy mur de Berlin maanaam fi mu taxaw lu ko fa déjët du noonu mm-hmm. liggéey bu wóor fulla bu wóor fayda bu wóor moo ko ciy génne mm-hmm. Siteu su ma koy su koy conseillé ci combat bi dama koy naan daman ko xooli combat lag de Boy Niang mm-hmm. Boy Niang dafa jël doole boo xam ne ne poids boo xam ne ne moomu ko mm-hmm. mu ñëw bëgg a forcer mm-hmm. Bakary am na lu mu wax d'accord naa ci maanaam combat bi waru cee jël muscle pour naan daa dagg-dagg bu rafet mais na ci jël gras boo xam ne da koy da koy moom mais du doole rek lay entraîné day entraîné doole technique boo xoole Zarko ak Ada Fass Ada Fass dafa fàttali ne moom war na entraîner doole technique mais dafa entraîner doole kese li mu yoroon ci ci ci technique doyoon ko. Mm-hmm. looloo ko rek ci combat bi. Mm-hmm. combat bi bu ko Siteu bëggee daan wala mu am ci lu rafet. Mm-hmm. da koy jël ak philosophie du ko yenu ñaareel bi mu jël li nga xam ne tey entraînement bi da koy teel a ji maanaam tey na dëddu jàmm gën. mu nekk la mu doon def foofu toog foofu guddeeg bëccëg amatul bu signé bu dee combat bi signé nañ ko na xam ne tey la combat am commencé. lépp lu mu liggéey na ko na na ko ko na ko xeeb lépp loo xam ne nu koy def bu mu ci parce que combat bi benn combat rek la bu ci jël loo xam ne ni suba da koy yàqal avenir am. Mm-hmm. na entraîné entraînement naturel na am ay coach yu koy jàppale. na def le tout xam ne tout simplement que ne combat bi tamit bu ko jëlee mhm. mu ci am ndam ak mu ci dul am ndam yi aussi na ci des li ci war maanaam bu mu ñëw ñu lii ko ci Lac 2 nag nañ ko conseillé benn affaire nag man li ma li ma gis faram loo gis Lac 2 dem jàng na fecc parce que tamit làmb doo ñëw ci bàkku doo ñëw munoo bàkku doo ñëw addoo supporter yu bëri doo ñëw tamit làmb bu taxawee tamit nga taxaw ne déj tamit loolu tamit day metti mais nag dugg na ci gaal bu gu bëri vitesse Fadam xam nga lu tax. lu tax. képp gu jël fara combat combat Siteu dootoo nelawati. Euh, Cheikh Nassi. booy waaw. Siteu kan mooy nijaayam. Siteu kii nijaayam mooy Yékini. kan moo daal Yékini. Lac de. kon Siteu combat revanche lay bëri. waaw mu ngi bëri combat man pour man sax du combat revanche. parce que man Lac de di daan Yékini Yékini nekkul woon Fadam. <laughs> dafa ñëw fekk fa dara. yow yow foofu la foofu laa yëkkee ah, waa mais sans waa ji dégg nga lu Cheikh wax dégg nga ko su Bakary Sakho wax ñoom ñaari seen communication bi loo ci jàngat ci diggante Siteu ak Lac de Guiers. non gars yi xam-xam la ñuy wax xam-xamu làmb boo xam ne nii ay ay ñuy wax moom. yeneen dimension la mooy di nekk ci préparation ak xam nga ak ak sax jour combat bi naka lay demee quoi si état d'esprit bi ñu war a ñëwee donc loolu moom defe naa mooy mooy mooy priorité ci ci ci làmb quoi sport de contact moom loolu moo ci ëpp solo mooy c'est-à-dire ni koy préparer ak jour bi si benn si ban état d'esprit ngay ñëwee mm-hmm. loolu c'est très important mais mais mais mais tey jii yow mi nga xam ne ni tey jii Lac de Guiers numéro 2 communication bi nga dégg ci amateurs yi ñu teel koo waxee Lac de Guiers 2 war a jël ay responsabilité am ndax Lac de Guiers 2 tamit war na dégg loolu ba def lu mu mënul. xam nga mooy si li may wax sànq rek mooy na nekk xam nga ku nekk da ngay am sa profil quoi c'est-à-dire euh, sa ni nga mel par rapport ak euh, li ngay véhiculer en tant que sportif Lac de Guiers bon soo ko xoolee da nga xamné ne ne que noonu noonu lay mës di communiquer su ñëwee euh, face à face am du changer su ñëwee suy bëri en général tamit même chose lay andi donc euh, lolu sank Bakary mu ngi koy wax quoi lu am importance la tamit ci ci compétiteur quoi moy dara bañ la mën a déstabiliser. Mm-hmm. par rapport ak yow li nga gëm quoi. lolu c'est loolu loolu am na solo légui Bakary Sakho yaay def yaay def deuxième partie bi. ndax man daanaka 15 la cent laa defee ci sama téléphone. alaaj Fadama am na lu fa am na loo fàtte loo mu fàttee laaj. lu la fàttee laaj. Aline Gueye fa la dëkk. Aline Gueye man. Aline Gueye manageru Lac de fa la dëkk. Ah, loo bëggoon seex naa si. ah comme baab dina jaxasoo moom de moom nag na jéem a teel a jug dem géej waay toog foofu ba <laughs> ko baab jeex waay sama garaan dama ko tooñ xam nga. mais mais gaa yi li ma leen di jox mooy li ñuy li ñuy ne tey moo nekkoon diggante Lac de Guiers numéro 2. ak ki nga xam ne nii mooy Siteu man nag li ma ciy wax bari na bariwul balaa ñu tëj live bi li ma ciy wax rek di ko amateur yi mooy Lac de Guiers numéro 2 def loo xam ne nii ci làmb Gris Bordeaux def ko ci làmb daa def ci làmb loo xam ne ni tey jii li ñaan Modou Lo roi des arènes la deful ci làmb lu Modou loo deful ci làmb Modou Lo def lu deful ci làmb lu Lac de Guiers ci làmb kon la Lac de na xol ay nawlem fiñu ag ci làmb lan mo len ko may la Lac de tamit warna defrat ci côté communication bo xolé modlo Modou am na koy waxal bo ñaar am na ñu koy waxal Balla gi de am na ñu koy waxal mais côté la Lac de Guiers gisuma dama gis communication bi dafa dess fofu ci te mi dogu judd rek am na ñoo xam ñu koy communiquer yow loolu yow Fadam yow yaa gën xam ne Lac de Guiers li koy empêché géejuwaay la moom gis nga nag dañ ko wax te dégg xam nga wax ne des fois dañuy wax di cof de baal moo daane ko baal gis nga da koy bu coupé ko kii <laughs> bëggul bëggul ñu e tëj tëj xalaat non bëgguma wax tëj tëj bëgguma wax tëj tëj eh, xam ne c'est dafa am xam dafa meti ah gis ngeen li ma leen wax xoole kenn ku neen tëddal sa lal rek nga jël place rek ngeen tëdd jaaxaan ngeen xalaat. waaw léegi li ma la nekk dafa dëgër léegi li ma bëgg. gis nga bu doon tëdd jam na boppam paaka bu yàgg li ma bëgg mooy abbe daa bëgg sa live Bakary Sakho taalal ñu ñëpp ñu ñëw ci sa live maa ngi yow Cheikh nag